sëriñ Mouhamadou Deme sëriñ Mouhamadou dem mi ngi gane àdduna ci atum 1887 ci dëkk bii di Kër Makala Kër Makala mi ngi ci département bu Tiwaawan ci région de Thiès ci suuf si di Kajoor sëriñ Mouhamadou Dem doom la ci sëriñ Moor Yaasin Dem ak soxna Aminata Ba bu Boofel sëriñ Mouhamadou Dem kenn rek la bokkal waajur wu jigéen di soxna Aminata Dem mi ñu koy wax soxna Faati Dem sëriñ Mouhamadou Dem bi matee dal li di alxuraanul karim ci ëttu waajuram boobu la jàngee alxuraan di Kër Makala nekk ci département bu Tiwaawan ci région de Thiès waajuram moo ko jàngal alxuraan ba mu géeju lool ci wàllu alxuraanul karim ginnaaw bi nag lañ ko jébbal sëriñ mbàkke bu so bu gede mu jàngal ko lii di xam-xam kii di sëriñ xam ma du dem ginnaaw bu mu jàngee lii di xam-xam ci sëriñ mbàkke buso dafa jóge woon nag wëraat lii di daaree xam-xam yi fu mu dégg taalub xam-xam mu dem fa ginnaaw bu mu sàkkoo xam-xam nag la delsiwaat ci sëriñ mbàkke buso ngir di ko jàngaleel ci daaraam booba diggante gede ak lii nekk ci wetu Sonatelu Touba bi sëriñ Mouhamadou Dem mii ma nga woon foofa di jàng lii di xam-xam foofu sax ci wetu Al Azhar bu sëriñ Mbàkke bu sa mi sëriñ Mouhamadou Dem sancoon na fa ab dëkk bu ñuy wax woobe waaye dëkk bii dafa mujj gent ndax kii di sëriñ Mouhamadou Dem amul woon jotu jàngale alxuraan ak toppatoo lii di dëkk boobu di woobe dëkkam boobu di woobe bi mu ko sancee tombeeg mu nekk fa di jàngale alxuraanul karim ñaari dongo yu mu yoroon ci dëkk boobu di woobe di leen jàngal lii di alxuraanul karim dañoo mujj génn àdduna ci dëkk boobu di woobe nit ñi di ko jàmbat ak di ko ko wax ba tax mu def ci dëkk boobu di woobe ak dongo yooyu génn àdduna ci daaraam jooju ay way ñu teew lu way yim jagleel ñaari dongaam yooyu ak dëkkam boobu di woobe marhal ila Mbacke wala tattakil alal nabi wala Mbacke wala man isa ma shaa amran anaalahu bikun laysa shay'un man qadaahu yunfaki wa illaa fala zil fala zalat ma masaibu daarikum tusibukum bil mawti wal husni wa dakki wala taalamu anna dunya watanul bala wa sayyaani man fi aw kaana fi takke ilahi ilayka alxaalu ashuba tashkini wa almuka yakfi fiika an nafsin waaw sakki bi jaahil xadil xutbi ahmada hasila alayhi ridal baari wa maxdumi makki alayhi salatullahi ma dumtu qailan munayil muna lal woobe googu sax kii di sëriñ xam du Dem dëkkoon na fa laata muy giseeg sëriñ Touba Seexul Xaddim wala laataa muy ñëw njaareem di toog ci sëriñ tuuba Seexul Xaddim ba amoon na sax lii di daaray alxuraan ci dëkk boobu di woobe woobe nag ni ma leen ko waxee ci diggante Sonatel bi ak Touba Lazare bu sëriñ Mbàkke Bousso foofu la nekkoon sëriñ xam du Dem daana def ci dëkkam bii di woobe fa la daa jóge di dem gedeg sëriñ Mbàkke Bousso di fa jàngale ndax sëriñ Mbàkke Bousso moo ko jàngal lii di xam mën nañoon jàpp ne sëriñ mbàkke bu sa royukaayam la woon ajjuma ci ngoon la daa jóge ci dëkkam bii di woobee dem fii di géde fa lay def ajjuma samedi dimanche altene talaata ba àllarba ci ngoon mu ñibbi siwaat ci dëkkam bii di woobee ba itam am na ñum fi bàyyi woon ñuy jàngale lii di alxuraan ak xam-xam su fi fanaanee guddik àllarba ak guddik alximis ajjuma ca ngoon mu gontowaat dem lii di géde noonu la ko toppoo boole koog nag di ziyaare ji sëriñ seexul xaddiim ci njaareem 1927 sëriñ Touba Seexul Xaddim mi ngi ci dëkk boobu di njaareem kii di sëriñ Mouhamadou Dem bind na nag ñetti téere wala bind na ay téerey téere ñu ràññee ci rek bi mu tuddee wala bi mu def ci alxuraan muy firi ba di tafsirul alxuraan ci wolof lii di alxuraan firi na ko ci wolof ba mu egg ñu tuddee ko tafsiru alxuraan bind na itim beneen téere tuddee ko li mat a xam maanaam nit ku ne li nga war a xam lu ne ma nga ca bindaan na beneen téere itim tudde ko kër docteur wàllu faj ak yeneen ak yeneeni téere yoo xam ne nii ku dem ci njaboot gi ñu wan la ko kii di sëriñ Mouhamadou Dem ginnaaw bu sëriñ moor Xari Si génnee àdduna jagleloon na ko ay way ngir di ko ca marsiyaal ñu teewlu way yi sëriñ Mouhamadou Dem jagleeloon sëriñ moor Xari Si zaaba wal juul mahwu tuwatan kutuwatan wa iraadatun bis suqi wal iqaani wa iraadatun bis suqi wal iqaani zaaba tuqaa wal juul لا يقصدن عملا للدنيا أو هوى بل مخلص في الكل الرحمن من للشيوخ ومن لأبناء الشيوخ في كل كهولهم والشيب والسبان من للضيوف إذ يتاهك القراء wa mustirin mustirin kulan min difaani man lil aramili wal muridin al huda man lil xaribi daari wal jiraani man lil xaaribi wal abaadi wal qura man lil qura bustaani ginnaaw sëriñ moor xari si kii di sëriñ malik baasin si itim kii di sëriñ muhammadu dem def na ci moom ab marsiya xam naa ku dem ci njabootu sëriñ muhammadu dem danañ la wan marsiya bi sëriñ muhammadu dem def ci sëriñ malik baasin si mii sëriñ muhammadu dem at mii di jàpp 1959 ci réew mii di senegal am na benn kilifa diine bu fi tere woon lii di tux carte naan sàngara ci dëkkam am benn waay nag bu nekk ca dëkk ba lànk ne moom loola du ko ba ba taxit mu bindoon ñetti way di laaj kilifa diine ba ci lan la sukkandiku ba tere loolu ak ci yenn aaya la ko sukkandiku ba tere loolu mu doon tere ci dëkkam jaarale ko nag ci ay way def ko ñetti way kilifa diine ba tontu woon na ko moom ci ñetti way di ko wax lu tax mu tere ko kilifa yu bari itam ci biir réew mi kenn ku ne tontu woon na waa jooja ci ŋàññ gum doon ŋàññ kilifa diine googa ci ay way yu mel ne ya ko waaja def kii di sëriñ Mouhamadou Dem itam moom itam tontu woon na waaja ca ñetti way yam bindoon moom itam defoon na ñetti wayam di ko naqarlu di tontu waale waaja ca lu tax muy ŋàññi kilifa diine googa ñu teewlu tontub sëriñ Mouhamadou Dem wala naqarlu gu sëriñ Mouhamadou Dem doon naqarlu jëfi waajoojee mu doon ŋàññi kilifa diine googe wala mu doon laaj lii di kilifa diine ga moom kilifa diine gi ci lan la sukkandiku bay tere naan sàngara cib dëkkam ñu teewlu sëriñ Mouhamadou Amadou Deme. man mantu muskirun rifaaxan kullama. doxaay meloon aqala fa xam xaruma. درب قليل منه أو ما كسر جانب الحرمة لا تعتذر فترك بالمسجد ولا تداوي أي أذن به كما للراوي kii di Maam Mor Jaara magi mag Sëriñ Muhammadu Dem itam bindoon na kaamilub alxuraan boo xam ne ci loxoom la ko bind boole kook ay way jébbal ko Maam Mor Jaara magi mag ñu teewlu way yem boole woon ak kaamilub alxuraan ba jox ko Maam Mor Jaara magi mag ilaa xalimin taqiyin aalimin wakarin muhammadin najli xibrin zi mansijaati عبده وهي الليالي بأوراد وثنيات أتيتك اليوم أودي مصحفا لكم فاقبله مني واسترق لسواتي يا سيدي شيخ يا جدي خذ بيدي وحسني waxusanimisa bi musarat nawaf baati way mu mujj ci xasida googu nag mooy jaay ahmada xëddul ko ni di mbàkke mi njëkk a wuutu sëriñ tuuba seexul xaddiim kii di sëriñ muhammadu dem way na ko ay waay ngir di ko ci njukkal ak di ko ci sargal ñu teewlu way yi mu def ci cheikh mamadul moustapha mbàkke moom sëriñ muhammadu dem mi yaa man qawluhu mahma nawaahu kazalika sa'yuhu mahma aahu من الشيخ الخديم إليه فيه فاز فناؤه من نصباه أخو من صدقه ما عاهده وأخو من أنكره كمن عداه أرادوا أن يفوض بمبا خيرا أرادوا أن يفوض بمبا غيرا وبمبا أبا وقدم مصطفاه أرادوا أن بني الشيخ جهرا وليس منتهي ما قد براه وقال وقال قاب خاف عنا الخوص زعما وقلت الدهر مشعده منا lii moom day wane ne kii di sëriñ Mouhamadou dem bindkatub alxuraan la woon jàngalekatub alxuraan la woon waaye ku daa way la ndax lii wane na ko kon ma wax leen lu waral giseb sëriñ Mouhamadou dem wala lu tax sëriñ Mouhamadou dem toog ci dëkk bii di njaareem ndax neewoon naa leen daana def saa bu jógee ci dëkkam bii di woobe nekkoon ci wetu lazaru sëriñ Mbacke Bousso te nekk fii ci wetu sonateelu tuubaa bi digganteem ak dëkk bii di Daaru Salaam daana sëriñ tuuba seexul xaddim dem ziyaari ji ko njaareem ci atu 1919 nag la ko sëriñ tuuba seexul xaddim téye ci njaareem ginnaaw bu bum ko ziyaari ji kon lii moo yóbbu sëriñ muhammadu dem njaareem ndigal liitim moo ko fa taxa toog ba ni mu génnee àdduna ci atu 1967 waaye newoon na leen lu ko jiitu daana fa dem di ko ziyaari ji ci la ko seexul xaddim joxe lii di daaray alxuraan boole koog nag wutal ko kër njaareem na ko toog fa jàngal na itam ñu takkoo takku seexul xaddiim yi ñu ràññee ci kii di sëriñ abdu xaadir mbàkke mi toogoon ñeenteelu xalifa sëriñ tuuba seexul xaddiim jaar na ciy loxoom kii di sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke mi toogoon juróomeelu xalifa sëriñ tuuba seexul xaddiim itim jaar na ci loxoy sëriñ muhammadu dem mi ñu ràññee ci kii di sëriñ habibu mbàkke imaam nekkoon imaamu ràttibu jumaay tuuba itim moom la ko sëriñ tuuba seexul xaddiim njëkk a jox ci doomu aadama ngir mu jàngal ko moom sëriñ muhammadu dem mi ba tey kii di sëriñ muhammadu dem jàngal na sëriñ muntaqa cheikh mohamadul bachir mbàkke jàngal na itim kii di sëriñ abdul quddoos mbàkke di xalifa mbàkke kajoor jamono ji kii di sëriñ mustapha loo doomu soxna musli bintu sëriñ tuubaa seexul xaddiim itim jaar na ci loxoom jàngal na itim ku ñuy wax sëriñ méew nu jaxate bu njaareem kii di sëriñ mouhamadou dem jàngal na sëriñ saaliwu turé bu nekk Thiès moo représenté sax xalifa général des mourides ci dëkk boobu kii di sëriñ gédé mbàkke nekkoon itim imaamu ju mag ji itim na sëti sëriñ Touba Seexul Xadim yi itam jaar nañ ci ay loxoom muy sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëriñ Mbacke Madina waa kër sëriñ Malick baasin si ak sëriñ moor Xari si itam jaar nañ ci loxoy sëriñ Mouhamadou Dem ba sax ci toog toogaayu sëriñ Malick Basin si ñu koy wax sëriñ Mouhamadou Dem si mii sax sëriñ Mouhamadou Dem la ko waajuram wu tudde ndax ak wóllëre gu ñu amante woon ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Mbay si sëriñ Haza si imaam ci Touba Belal sëriñ Modou Xari si sëriñ Moustapha si ak sëriñ Abdou si ñii ci njabootu sëriñ Malick Bassine si lañ bokk ak sëriñ Mor Xari si jaar nañ ci loxoom suñ mbokk yeneen tariixa yi kii di sëriñ Ibrahima Guèye nekk imaamu Ndande itim jaar na ci loxoom kii di sëriñ Malick Seck boroom yàlla nee na jaar na itim ci loxoom kii di sëriñ Abdoul Aziz Seck bu Canaba ak kii di Xalifa Seck bu Canaba itim jaar nañ ci loxoy sëriñ Mouhamadou Dem mi Baye Modou Bousso nekkoon imaam itim ci jàkkay Taïf ji tim jaar na ci loxoom sëriñ cheikh sëy imaamu daarul xuddoosi jaar na ci loxoy sëriñ mouhamadou dem sëriñ malik jeng bu njaareem ak kii di sëriñ moustapha gueye daara nekkit ci njaareem jaar na ci loxoom kii di sëriñ moor mbay siise bu njaareem itim jaar na ci daaraam ngir doon fa sàkku lii di xam-xam bam noppee sax jox na ko doomam ngir mu denc ko sëriñ mouhamadou ahmadou dem xalifa sëriñ ahmadou dem it mooy xalifab sookoon jaar na ci loxo yi sëriñ mouhamadou dem mi sëriñ tuubaa seexul xaddiim la jàngale ñii ñépp itam ci atum 1919 bi mu fekk see sëriñ tuubaa seexul xaddiim fa la nekk di liggéeyal sëriñ tuubaa seexul xaddiim ci wàllu njàng ak njàngale ba noppee gis sëriñ tuubaa seexul xaddiim mu topp nag ci ginnaaw taawub sëriñ tuubaa ba seexul xaddiim di cheikh mohamadul moustapha mbàkke di ko liggéeyal boole koo itam di ko jàngaleel comme ni mu daa defal sëriñ tuubaa seexul xaddiim ñaare itam képp koo xam ne nii jàngal na la su paree dalay beral sa daara kon bari na daara yu baree bari tey ji jàngale alxuraan aka jàngale ci loxo loxoy sëriñ Mouhamadou Dem mi la ñu bàyyi ko bi fi Cheikh Modou Moustapha Mbacke jógee itam la topp nag ci ginnaaw ñaareelu xalifa sëriñ Touba Cheikhul Xadim bi di Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke di ko liggéeyal ba moom te ju tedd jooju di sëriñ Mouhamadou Dem nu mu fi bàyyi ko sëriñ Mouhamadou Dem mi ngi fi bàyyi ko bisub talaata ñaar fukki fan ak benn ciw maamu koor ci atum 1387 ci gàddaay gi talaata ñaar fukki fan ak benn ciw maamu koor ci sept ci gàddaay gi dëppoog mardi 26 septembre 1967 mardi 26 septembre 1967 ci njaareem ñu denc ko ci dëkk bu sell bi di Touba. kii di sëriñ Mouhamadou Deme jàng ak njàngale mi ko sëriñ Touba seexul xaddiim dëloon ci njaareem ci la nekkoon ba talaata ji mu génne lii di àdduna ca altine ja xëy na jàngale ci daara ji ki mu mujjee jàngal ci daara ji mooy sëtam bi ñuy wax sëriñ Malick Deme doomu sëriñ Abdourahim Deme la mi ko njëkk a wuutu ci xilaafaam xasida gim ko doon jàngal ci altine ji tasawudu sixaar la tudd te talaata ja ci fajar lañ yëg na sëriñ muhammadu dem dem na ay atam toll ci juróom ñetti fukki at ñu indi ko tuuba ci ndigalul cheikh mohamadul faadal mbàkke doomu sëriñ tuuba seexul xadim bi ñuy wax cheikh abdulahat mbàkke moo ko jullee taxawu ko keroog biñ koy jébbal lii di boroomam ci tuuba moom sëriñ muhammadu dem mi mbooleem njabootuk sëriñ tuuba seexul xadim gépp ña nga fa woon ca jullikaay ba mbooloo ma fa teewoon itam kenn xamul nu mu toll am na kenn ko wax ca jataay ba ne bu fekkoon ne ñi mu jàngal dong de ñoo fi ñëw mbooloo mi sax dana ëpp lii kon bokk na ci kilifa yi ëpp mbooloo ci ginnaaw bu ñu làqoo ci ñu ko gunge ca kërug dëgg ga kii di sëriñ Muhammadu Dem nag moom moo sàkk woon ci njabootam di leen wax ne bu ko kenn màggalal loola itam njaboot gi sàmm nañ ko bu baax te ñi ngi koy wéyal ba jamono ji amut lu ñu tudde màggal gu ñuy woote waaye nag ñaar fukki fan ak benn danañ ko wàcceel lii di ay kaamila alxuraan ngir jagleel ko mécce ma mu doon def di jàngale lii di alxuraanul karim sëriñ Mouhamadou Dem ay xalifaam nag nii la tëdde ci atum 1967 ba atum 2003 ku ñuy wax sëriñ Abdourahim Dem mooy ki ko njëkk a wuutu moo toog 67 ba 2003 ci diiru fanweeri at ak juróom benn la wuutu waajuram wa 2003 ba nëga ni ku ñuy wax sëriñ Moustapha Mohamed Dem moo toog ñaareelu xalifa sëriñ Mouhamadou Dem ñuy ñaanal bu baax baax sëriñ Moustapha Moustapha Mohamed Dem mi suñ boroom guddal aw fanam te wéyal ab liggéeyam ci darajey waajuram woowee di sëriñ Mouhamadou Dem ak ci barkeb ndigal li ko sëriñ Touba Seexul Xaddiim joxoon ak mbooleem njabootu sëriñ Mouhamadou Dem ak taalibey sëriñ Mouhamadou Dem yépp ak ay sëtam ak soppeb sëriñ Mouhamadou Dem ndono loolu ko sëriñ Touba Seexul Xaddiim bàyyee loon wala ndigal loolu ko sëriñ Touba Seexul Xaddiim bàyyee loon muy jàngale alxuraan ak jàngale jàngale lii di xam-xamit ak jàngale moom la lépp itam ci loolu lañ nekk ba ku tudd sëriñ Mouhamadou dem sa xel nekk ci jàng ak jàngale doomu soxna Aminata Baba ak kii di sëriñ Mor Yacine dem yal nañu ko yàlla fayal càmmiñul soxna Fat dem ja yal na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem amiin ñu ci barkeem amiin